jërëjëf mbokk yi curcuma moo nekk nii moo tax ñu defal la savon curcuma muy saabu boo xam ni dafa lay eh, dimbali ci lépp lu jëm ci wàllu der xam ngeen ne curcuma fu mu sax fu ne dafay lay dundal der wi ba mu mucc ci lépp loo xam ni daf koy agressé savon curcuma saabu la boo xam ni dafay xeex lu jëm ci acné dafay tëj lu jëm ci wàllu vergeture waaye savon curcuma dafay nettoyer lépp luy jëm ci wàllu tache góor ak jigéen mag ak ndaw mën ko jëfandikoo kon savon curcuma saabu la boo xam ni dafa lay dimbali ngir dundalaat saw deret dafa lay dimbali ngir lépp lu jëm ci wàllu pollution mu raxas waaye dafa lay dimbali ki nga xam ne dafa am ay acné waaye day dimbali ki nga xam ne saa buy gis mbaax li nga xam ne moo di picc yi day feeñ ci kanamam li nga xam ne moo di savon curcuma dafay xeex ak moom savon curcuma saabu la boo xam ni dafay corriger rides yi waaye leneen lu ni mel daf koy dimbali kon saabu curcuma saabu la boo xam ni ak ma mën nga ko am kon yow mi nekk ci réew mi ak bitim réew boo itteewoo suñu savon curcuma mën nga ko am su dee yaa ngi Mboro Touba Thiès Kaolack Bumbu mën nga daal di am suñu nga li nga xam ne moo di savon curcuma savon curcuma ca Louga savon curcuma ca Mboro savon curcuma ca Touba Mbour ak curcuma